coalition bi nga xamante ne peut-être ñëpp a ngi leen di déglu muy coalition comme sa bopp ñoom itam euh, ban jàngat ngay gis seen taxawaay depuis tout ce ñu gis ne ñoom tekk bi la ñu maye en attendant peut-être di xool euh, fan la ñuy teg seen tànk. alors doon ñëw rek tuuti ci Karim parce que mm, mi ngi mi ngi rappelé kay wax na ko léegi euh, sëriñ mhm. parce que moom mi ngi mi ngi rappelé que ne <clears throat> waxtaan na ak Bassirou Diomaye sur les restrictions des libertés sur l'état de la démocratie au Sénégal ba dem ba fàttali ne Pastef dafa allié woon ak wàllu mooy yeewi askan wi ak wàllu loolu moom moo tax ñu am cette représentation à l'Assemblée nationale foofu donc li li ñu doon waxtu tout à l'heure sax da koy xaw a wàññi mooy idéologie yi bokkul mais terewul àndoon nañu élection législative ba mën a am timbo ci Assemblée nationale lu ko jege ndax loolu moom moo tax ba yeewi askan wi ak wàllu am député yi nga xamante ne moom la ñu am aujourd'hui à l'Assemblée nationale mais boo gisee ci biir waxam nga xam ne euh, euh, dafay fayantoo ak Amadou Ba parce que euh, ci biir wax bi wax na ne également li nga xamante ne moom la ñu échangé mooy également le plan de la confiscation de la volonté populaire du candidat Amadou Ba qui a pris toutes les dispositions pour s'imposer au premier tour le soir de l'élection présidentielle dimanche en détournant les suffrages des Sénégalais avec la complicité du Conseil constitutionnel xam nga loolu mi ngi ñëwaat mm-hmm. ci moom bokk na ci li motiver certainement ay choix wam ba mu dem ci Bassirou Diomaye Faye bi mu jàpp ne euh, le duel où la dualité kenn munu koo dindi aujourd'hui c'est Bassirou Diomaye et Amadou Ba mm -hmm. donc loolu moom moo tax boo seetloo moom moom mu defee noonu donc pour dire que ne peut-être àndoon nañu et, revenir nañu foofu suspicion bi mënul ñàkk parce que mhm. man li ma gis nii mu mu tàmbali am mooy beaucoup de personnes dinañu dem dinañu dinañu mer comme mer dem ànd ak Amadou Ba mais le noyau officiel le noyau daf fii des nag. Mm-hmm. muy l' appareil du parti démocratique sénégalais et Lamine wax na ko sànq sa peut faire mal hein. très mal donc même. donc aujourd'hui décision bu PDS bi dafa changé waat carte yi. Fatima. Mm-hmm. dafa changé waat carte yi ci sax la nga xamante ne aujourd'hui doon nañu ko wax donc élection présidentielle boo xamante ne parce que pas ñi far parce que ñi far tey ko ci dégg. mun la am naa 58 pour cent am naa 53 pour li ñu naan une élection présidentielle ne se gagne pas elle se perd malheureusement nag boo faree mënuloo xam loolu mooy mhm. ki nga faral nga jàpp ne moom mooy gagné premier tour ñee naan deuxième tour mhm. mais li am nii nag ku ci nekk boo dee jàngat politique mën nga ci jàngat ne am na lu muy changé ci don bi mhm. ci loo xamante ne li muy ki ci am faveur moom mooy Bassirou Diomaye Faye maintenant pour le cas de de de wax nga ko même da ngay gis sax ne ñun sunu sunu naataango taskatu xabaar yi sax dañuy dañu naan ko Bougane yeewil askan wi parce que aujourd'hui moom ak euh, kii di RS mm, euh, Karim gis naa sax tribune de ce matin bi bind ne Karim Wade Bougane Gueye Dany faiseur de roi et oui parce que ce sont aujourd'hui les deux coalitions politiques yi nga xamante ne choisir guñu benn camp et ils elles sont très représentatives loo ci wax parce que élection c'est vrai ci la ñuy nattee kuy dem parti politique mais élection locale yi nga xamante ne ci la ñu génn keroog am na ku may rappelé ne gëm sa bopp am na deux cent vingt mille voix. Mhm. ci élection yooyu nga xamante ne ci la ñu jóge woon muy élection locale yi. Mhm. dem nañu ba localité yu bari dañ fa am ay adjoint au maire. defoon presque bu ñuy wax maillage du territoire national moom à plusieurs reprises gis nañu ne quand gëm sa bopp def na ko donc élection législative yi demul. parce que parrainage moom moo tax mais terewul mu def le tour de beaucoup de localités et mobiliser fépp fu mu mënti dem keroog bi nga xam ne ñu ngi def euh, meeting bi nga xamante ne moom doon def pour def euh, déclaration je pense fàtte naa tur bi pour pour mm-hmm. mooy bi ñuy waaj a dem élection présidentielle mm-hmm. investiture laa bëgg a wax mm-hmm. gis nga mbooloo mi nga xamante ne moom moo fa nekk faaw nga dem fa pour nga xam ne mbooloo mu mature ñoo fa nekk ay nit yoo xamante ne ils sont prêts ils ils sont prêts à élire leur candidat malheureusement ça n'a pas abouti puisque ça n'a pas abouti puisqu'il a été donc kooku c'est normal parce que politique addition la du Mm-hmm. aujourd'hui même ñun ñii di ay liggéey katam nga xam ne il fait de la politique ça n'a rien à voir avec ñun suñu métier de journaliste bi ñuy def ay ni dañ lay woo sax naan la sa da woo nit eh, di ko invité naan ko doo ñëw sama plateau mun la waaye xanaa doo wax buggaan mu ñëw neex ma ça c'est clair ka Bougane kan lay soutenir Bougane waxagul ce matin rek. wala ñu envoyé ce matin rek des gens. <laughs> yoo xamante ne koo ci woo mun la. waa léegi yow mën ne waa ñëwal rek plateau bi c'est vrai que juste na nga ne ma fexeel ba sa patron ñëw ci man ba pare ñu doog a ñëw ça veut dire que il intéresse tous les partis loolu moom mhm. ngay def ay ay jéego plus ngay def ay dayo plus ngay am ngay attirer l'attention et que boo demul élection nit ñi dañuy bëgg nga ñëw d'autant plus que ñu ci bari dem nañu ci coalition. ñi nga xamante ne mooy soit Jomaay président ñu ci ëpp ñenn ñi dem nañu ci xalifa ñi dem nañu ci Idrissa Seck Amadou Ba am na ñu dem ci moom mais Amadou dafa am déjà li nga xam ne mooy la coalition benn Bokk Yakaar le groupe l'AFP le PS LD et les autres partis moom moo tax sax ñu ko fekk si xëy na bariwut noonu dul ay euh, individualisme la gën a am que ay coalition wala parti yoo xamante ne dem nañu ànd ak moom aujourd'hui donc aujourd'hui nit ñi ñi ngi xaar Bougane et je disais l'autre jour que parce que man ba may wax PDS sax dama jàppoon ne PDS bu ñu suivre logique dafay dem ci le libéralisme parce que le père du libéralisme au Sénégal c'est Abdoulaye Wade. Mm donc man dama ci génne woon Bassirou Diomaye Faye. mais aujourd'hui le PDS a fait son choix un choix boo xamante ne moom moo xam li tax mu def ko et joxe naa sànq les raisons yi nga xam ne peut-être mën na ko pousser mu def ko maintenant pour Bougane également dafa am loo xamante ne mooy logique et je l'avais que ne man peut-être que leneen moo may bett mais duma bett que Bougane soutient Diomaye président parce que il a toujours incarné l'antisystème maintenant fii boo fi dee set un candidat boo xamante ne moo ci gën a fës ci antisystème mooy Ousmane Sonko moo yàgg prôné système on dit Diomaye mooy Sonko donc le candidat de Pastef c'est Bassirou Diomaye fay donc ce qu'on attend en analyse tey moom moo doon que s'il se prononce moom la Sénégalais di xaar que mu dem ci Diomaye président bi nga xamante ne aujourd'hui ñoo bokk peut-être même idéologie politique je disais que le PDS ak gëm sa bopp ñoo bokkoon collectif des spoliés Bougane s'est démarqué à un moment parce que gis na ne moom dañu war a dem élection présidentielle coûte que coûte et que loolu moom moo mën a sauver le Sénégal dem nañu élection présidentielle taxul woon ñoom ñaar ñu bokk trajectoire taxul woon ñu bokk idéologie ku nekk danga am loo xamante ne moom nga moomal sa bopp muy le parti démocrate sénégalais muy aujourd'hui euh, gëm sa bopp mais quand il sage de thème ànd ak benn coalition je pense que li nga xamante ne moom lañ fi doxal boobu ak léegi ci gis-gis jàpp na ne li nga xam ne moom moo fi amoon am na lu ci bari loo xam ne daf ko doon critiquer ci réew mi jàpp ne ñii di les politiciens traditionnels moom ci ay kàddoom li yàq Sénégal ñooñu ci la ñu bokk et il faut une autre manière de faire de la politique moom ak ki ko fi incarné ndax nag loolu ñu wax dina nekk dans les actes mhm. parce que aujourd'hui c'est bon ñu ñu ñu wax comme ni ko Pastef yàgg a waxee mhm. su fekkee ne su dimanche dañuy xam Amadou Ba parce que c'est vrai que am na ci ñoo xamante ne ñoo féete kaw mais il peut y avoir également des surprises Surprise. et loolu surprise yooyu peut-être bu ñu demoon deuxième tour wala bu fekkee dañoo am premier tour ci la ñu koy xam maintenant ndax wax yooyu ah, dina nekk loo xam ne c'est réalisable dinañ ko def loolu peut-être moom moo jar moom moo jar a xaar mais tout le monde aujourd'hui wala bokk beaucoup de Sénégalais mm-hmm. ñu ngi xaar que Bougane se prononce aujourd'hui sur le choix bi mu war a def ci ban candidat lay àndal ci élection présidentielle bi am gannaaw suba. am na solo président Lamine Gueye ci kaw euh, coalition Gëm sa bopp ñu gis ne ne peut-être élection am na ñu ñu soutenir gis nga ni mu demee euh, ci élection locale yi également am na ku xamante ne ne bokkoon na ci moom gis nañ ni mu demee.